les conclusions des assises bi nga xam ne déposé nañ ko. Hmm. mais man dama jàpp ni xel war na mën a dal parce que aussi quand le président de la République donne euh, la une garantie pour euh, appliquer lépp loo xamante ni am na consensus bu bari sur euh, ñëpp d'accord nañ ko loolu day dalal xel par rapport <coughs> aux aux des textes des codes et autres xam nga avec l'application parce que am na ci point yoo xamante ni ay recommandations yu am solo la. mooy li euh, nga xam ni mooy la ñuy wax ni avocats yi ñoom ñu ñu fexe nu ñu présent dans les quarante cinq départements boobu aussi c'est important parce que aussi à l'intérieur du Sénégal des fois ñu am difficulté yooyu le présent des des avocats mm-hmm. li nga xam ni li ñuy mettre en place les juges des libertés et autres maintenant le point d'achoppement c'est le conseil supérieur de la magistrature man sama xalaat lay joxe moi je trouve aberrant aberrant nga am haute cour de justice ba pare di am conseil supérieur de la magistrature parce que man dama jàpp ni les magistrats ñi nga xam ni parce que le con la haute cour de justice ci li ñu wax nee nañ de justice pour la pour ouvrir la justice aux citoyens et servir de cadre de délibération de tous les acteurs de la justice maintenant moi je pense que la haute cour de justice war na mën a jël place conseil supérieur de la magistrature su boobaa ay président day nekk à la tête de la haute cour de, de, du conseil supérieur de la magistrature day jeex parce que le président doit présider obligatoirement su nekkee conseil supérieur de la magistrature disparaître na il va présider obligatoirement la haute cour de justice avec les parlements qui sera ouvert aux citoyens aux, membres de la société civile et les institutions de la république mmh. boobu loolu su amee dina permettre euh, président mën a toog ci ci ci ci ci ci boppu euh, magist euh, haute cour de justice je ne dirais pas conseil supérieur de la magistrature. man daal dama jàpp ni ni conseil constitutionnel di disparaître di di ci conseil constitutionnel dem ci cour constitutionnel. conseil supérieur de la magistrature noonu la waroon transiter vers la haute cour de justice donc ñu xam ni dootuñu waxatee conseil supérieur de la magistrature mais on parlera de la haute cour de justice man loolu laa jàpp.